Euh, voilà salaamaaleykum madame Ndiaye ñoo ngi lay bàyyi nga présenté wu wax sénégalais yow yaay kan déjà. Euh, maaleykum salaam maa ngi nuyu sénégalais yëpp di leen wax ne maa ngi tudd madame Ndiaye Fatou Diouf euh, je suis la présidente de la plateforme des braves dames bi waral ngeen taxawal ko. waaw comme président Macky commencé politique comité la taxawaloon ñu dem ba comité bi gën a yaatu. ñu tuddee ko Calabas léegi actuellement ñu ngi am lu ñuy wax plateforme des Calabas au niveau de toutes les Parcelles Assainies parce que demande bi dafa xawoon na bëri yematu woon ñu yaatal ko dugal ci ñëpp ñi nga euh, ñu gis daan ngeen amal fi en ndaje mu yaatu euh, lan moo waral euh, ndaje bu mel noonu. waaw li ko waral mooy depuis ba ñuy ànd ba léegi dañoo toogoon ni ki ni ni ñu def li nga xam ne moom mooy lancement bi macha allah lancement bu am doole. léegi ren comme daaw la woon ren ñu ne dañuy fêté li nga xam ne moom mooy anniversaire des des braves dames. kon tey mooy seen première année. seen un an waaw suñu première année depuis la création. Mhm. d' accord euh, léegi bi ngeen commencé seen activité ba tey lan ngeen jot a réaliser. en terme d' activité voilà bi ñu commencé ba tey ku nekk xam na ne braves dames moom dafa regroupé plus de deux cent femmes. donc euh, ñu ngi ci ay financement ñu ngi ci aussi ay emploi toujours euh, dañuy dem vers les les les les structures yi nga xamante ne ñoo nekk euh, ci ci ci état bi lu ci mel ni FONGIP lu ci mel ni DER fépp la ñuy dem di wut ay financement yàlla def amoon nañ financement bu 10 bu l'année dernière au niveau donc du FONGIP femmes yi jël nañ ko ba ñu ngi fay boobu ba léegi hmm. am nañ aussi li nga xamante ne président Macky Sall ku ne xam ne dafa lancé li ñuy wax xëyu ndaw yi donc man mi seen président bi ma toog damay dem toujours vers l' information wuti li nga xamante ne moom mooy euh, liggéey boobu indi ko sama programme yi looloo waral vraiment de passage mooy remercier le directeur de l' emploi bi nga xamante ne mooy Pape Modou Fall bi ñu demee vraiment gis ko pour mu jàppale ñi nga xamante ne ñoo nekk brave dame may nañu li nga xamante moom mooy vingt emplois te defe naa loolu la président Macky Sall di ko ci euh, man mii di seen responsable di seen présidente man am comité comme ni ko waxee woon sànq boobu moo transformé wu nekk Calabas ba ñëw tey jii li nga xamante moom mooy brave plateforme aussi ñu ngi biir Parcelles Assainies ñuy jàppale ki ñuy wax aussi le premier ministre le wax le ministre Amadou Ba ci ginnaawam di liggéey ak moom ànd ceeg suñu frère suñu sœur honorable Mbathio ban Diouf ñëpp ñu ngi àndandoo vraiment derrière son excellence derrière nga xamante ne moom mooy le premier ministre monsieur le ministre Amadou Ba. yi ngeen euh, fas yéene amal at yi di ñëw. waaw comme ñu ko gisee sànq fii euh, def nañ si li nga xamante ne moom mooy suñu. signature de contrat yi nga xamante ne moom lañ lijjante comme emploi am na ay financement yoo xam ne ci lañ jëm si am na donc ki fi présenté woon sànq pour expliquer waat yeneen financement yoo xam ne dañ ko war mën a jox suñuy femmes donc ñun daal bàyyiwuñ leen ci leen ñu ngi ci lépp fu ñu mën a wutijee emploi fu ñu mën a wutijee financement comme ni ma ko waxee sànq ñun ci loolu la ñuy dox man ci loolu laay dox boobu ci brasse femme tamit mën nañu xaar ngeen am seen biir ay jigéen yoo xam ne ci opposition bi lañ bokk non non pour dire le vrai moom brave dame bi moom bañ naa ko ba kuy ñëw sax di di di dugg ci biir brave dame dama lay wax lu lenn la man je travaille pour son excellence euh, le président Macky Sall mhm. donc euh, ñu dugg si rek damay le fait que président ngay jàppale d'accord tudd nga Euh, temps yi en tout cas sujet bu gën a présent ci actualité bi mooy troisième mandat est-ce que les braves femmes dañuy fas yéene tamit taxaw jàppale président Macky Sall. ma ko waxee rek ñun dañoo tënku ci parti muy APR donc euh, constitution bu daganee ne président Macky Sall dafa war a def troisième mandat ñun dañ ko ciy jàppale comme ni ko daan jàppale ñun ci constitution bi rek lañ tënku te man je pense que ak sama point de vue bi ma am deuxième quinquennat lay laaj war na koo mën a am parce que dañoo ne nul ne plus de deux mandats consécutifs le mandat est de cinq donc mu ngi doog ko def benn mandat de cinq ans je pense que bii di ñëw deuxième quinquennat laa ko mën a. nga may ma rek euh, balaa may daane ma profité nag gërëm ki nga xamante ne tey bu ma toogee ci APR ba léegi muy Thérèse Faye Diouf directrice FONGIP kooku moo ñëw fekk ki nga xamante ne ba APR sosoo ba léegi da cee sonn muy man nii mu jël ma génnee ma classement teg ma ci wetam activité bu ma mënti def dooleem mi ngi ci xalaatam mi ngi ci. xelam mi ngi ci xolam mi ngi ci donc président Macky Sall maa maa maa ngi koy wax ne ko gisuma ko de waaye jaaxlewu ma parce que Thérèse Faye Diouf mi ngi sama wet maa ngi koy remercier bu baax a baax a baax a baax